Ibrahima Diallo, premier vice-président chargé de la communication de l'Union régionale des mutuelles de santé de Thiès. benn lettre bu jugee ci directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle lettre bi nag am na ay ponk mais am na ñaari ponk yoo xamante ni moo ñu gën a soxal benn bi ci biir lettre bi ñu ngi wax ni état nee na lépp loo xamante dafa jëm ci bourse de sécurité familiale ak ñiy yor carte dégagée de chance état nee na da koy nangu si mutuelle yi téel ko boppam gérer ko boppam beneen bi état mi jëloon engagement waxoon ni képp ku natt 3500 ñu cent la nattal 3500 muy 7000 francs pour nga mën a faju correctement état nee na subvention boobu dina ko arrêté dina ko bàyyi te loolu nag ñun gis nañu ni bés bu amee dina am sox ci population bi dina impacter gravement la population du Sénégal parce que sur la base de calcul bu ñu ko defoon ba xam ne population bi tey 7000 yooyu bu doon cotiser état jëlal ko 3500 tey population bi ils seront obligés ñoom seen bopp ñu fayal seen bopp 7000 francs su ñu mënul fayal seen bopp 7000 francs état bi dina bàyyi loxoom ci loo xamante ni mooy engagement boo xamante ni. jëloon na ko jëloon na ko le président de la république jëloon na ko diggante moom ak population bu population bi fayul 7500 7000 ñu mën a am lu ñuy wax le paquet complet paquet complet mi ngi commencé si post santé jaar centre santé jaar hôpital départemental ba hôpital régional donc population bi dina impacté wu si si faj bi dootuñu am tout le paquet complémentaire ñu gis ni loolu. dafa nekk ay décisions yoo xamante ni ñun les acteurs mutualistes mënuñu ko comprendre te mënuñu ko naw moo tax nag tey à partir tey ñu décider def ay mesures fermes bu si commencé mooy di à l'État du Sénégal de revenir mu ñëwaat ci décision yi parce que décision ay baaxul si population population bi lañ fi nekkal population bi lañu bëgg n'est-ce ñu am une prise en charge correcte sur le plan sanitaire pour wane nag sunu mécontentement dañaa décidé arrêté suñuy activité lu toll ak ñetti fan à compter de tey lundi lépp luy lettre de garantie au niveau des postes santé dañ koy dañ koy téye lépp luy prestation faj bi ci niveau post de santé yi dañ koy téye lépp luy faj boo xamante ni dafa jëm ci paquet complementaire bi li jëm ci hôpital dañ koy taxawal pour wan état du Sénégal mu revenir à de meilleurs sentiments xam ne lii kat mesures yi jël nii bés bu ko jëlee dina impacté baax a baax situation si. Émile Demba yore mbir mbir lépp luy yokk mutuelle de santé yi ci union régionale des mutuelles euh, dañoo jot bataxel bu yore ci directeur. agence couverture maladie universelle di docteur Mamadou Daaf mu wax ni dafa bëgg a maanaam nguur gi li mu wax da ko wax yaakaar naa ci ndigalu nguur gi ndax nguur gi la fa toogal mu ne léegi dafa bëgg a soppali li nga xamante ni président de la république moo ci engagé woon mu waxoon ni képp ku bokk ci mutuel dina la nattal juróom-ñaari téeméer ci kaw boo tegee si juróom-ñaari téeméer loolu ñu ngi ko doon def depuis 2013 te loolu dafa àndoon ak lu mu doon jël ci paj mi dégg paj mi jamono yooyu soppeeku na képp ku daan dem faju muy poste de santé ak centre de santé ak garab yi bu dee faj bi 80 pour cent la maanaam ñaari fukk yoo yoo yoo jël fukk ak juróom-benn yi la ñu lay gàddul nga werse ñeenti ñeenti dërëm garab yi bu ñu la ko bindalee nga dem hôpital bu dee garab yi nekk ci bitti nga dem jël ko genn wat loolu yëpp dafa am euh, lu mu wund lu mu wund mooy lan mutuelle. du loo xam ne lii boo koy doxal dangay ngay xëy rek ni jël damay jël doxalte loolu boo ko defee rek fekk xam-xam loolu nag ñun ci bëgg rey mooy que ñoom dañu leen a loo xam ne lii xamuñu ko ba pare ñoom la ñuy jox doole ji ndax nguur gi ñoom lay jox koppar yi mais ñañu ko sékkal ñoom nañu xam ni mutuel du lu bees ñu lu yàggale fii ndax ñun ñii balaa euh, couverture maladie universelle fekk mutuelle Fadeg taxaw na lu jege fanweeri at ku def fanweeri at di doon nattal boppam di góor góorgóorlu xam nga kooku mosul sóoraale ni nit dina ma jàppale suba mais foofu la ñu gërëmee président de la république bi mu ñëwee yaatal ko ba def ku kiiraay ba muur ko yëpp ci réew mi pour que ñëpp mën cee jot parce que loolu. boo gisoon mu def ko gisoon na ni nit ñi dañoo sol ndax bëgg nañu faju te mënuñu jot ci paj mi mutuelle nekkoon alternative maanaam loo xam ni li mën nañ ci jaaree pour ñëpp mën a bokk faj loolu nag soo xëyee ngi ci nit ñi diiru fukki at donc nga bëgg a wu loolu leneen lay doon retrait sax ñun bañuñu ko mais tàggatoo dafa war a maanaam soo bëggee tàngook nit ki nee ko ni li tàmbali diir gii maanaam atub ren ba fekk fii ñetti at mbir mi de bëgg nañu muy maanaam din ma ci tubaab da ko am d'une manière dégressive noonu la ñuy tàggoo wala noonu la ñuy doxalee ci mutuelle de santé mais c'est dommage ñi ñu ko dénk yëpp ndax mutuelle ña fa nekk yépp kenn jàngul mutuel xamuñu lan mooy mutuelle de santé ñun ñi ci yàgg ñun ñi ko yore ñun rek ñoo xam ndax bés bu ne yaay jàmmarloog ñi yaa xam seen soxla yaay seet nooy def teg ay pexe ba mbir mi mën a daw mais loolu bu ñu la ne li nga xam ne mooy moyens yi nga yore ko mais dangaa war a gën a déggoo ak ñi nga xam ni ñooy def liggéey ci mutuelle yi yëg ni mbir am te mbir moomu ñun ñi nga xam ne ñun la ñu jiital li ñu war mooy ñoom ñëpp ñu gaaw koo xam te loolu bokk na ci bu ñu taxawalee ni fajatuñu ñoom ñëpp ñu daldi di ko yëgandoo comme ñun parce que boo ko deful noonu du ñu tànk yaa ngi faj nit ñi du ñu xam li mais comme dañoo xëy def da ngay xëy def rek bu yàggee dinañu comprendre.